bismillahi rahmaani rahiim wal fattaahu alim baabu maa laa yansarif maa laa yansarif nu di ko firee ci sunu waxi wala fa lu dul soppeeku waaye loolu du tax sunu xol lanu bëgg dëgg dëgg nu am ci dégg maanaa bi maa laa yansarif maa laa yadxuluhu tanwinu sarf dafa am tanwin gu ñu tudde ci naxu tanwinu sarf dégg nga mooy tanwin goo xam ni mooy tegtale ni lisim ji piiru lisim la luy maanaa lisim piiru lisim la lisim bu niroo feel dootu piir waxuma laag bu niroo xaraf ndax bu niroo xaraf dañ ko génnee cosaanam aslan xañ ko liraab ki doon cosaanam te liraab moo doon benn ci cosaani lisim moo tax maa laa yansarif pour nga xam ko il faut que war ngaa xam cosaani lisim nag ndax génn cosaan ñaari yoon moo koy waral mbaa lu deme ne génn cosaan ñaari yoon lu deme ne génn cosaan ñaari yoon mooy li dal mu annas bi bil alif taanisu alif ak li dal boroom siixatu muntahal jumoo kooku lu dul loolu ñaari génn cosaan yu daje ci baat mooy tax muy maa laa yansarif kon nag bala noo xam génn cosaan xam lu doon cosaan ba noppi ndax bu nu ko gisul xam ne kii dafa génn cosaan cosaan lisim juróom benn la an yakoona mufradan jaamidan muaraban muzakkaran munakkaran munsarifan yooyu mooy cosaani lisim da dégg na nekk mufrad tasniyaak faru tasniyaak jamu farciya la ci lisim du dëgg jaamidan wa ishtiqaaquhu farcun lisim doon mustaq banqaas la ci moom lu doon cosaan ba mu doon jaamid moo tax rajulun jaamid la xajarun kitaabun baytun dégg nga baqaratun waaw moo doon cosaan ci lisim ama daaribun tawilun yooyu far la far yële ci lisim lu dëgg kon mu nekk jaamit mooy ki te di muaraban di lu ñu liraab ñàkk liraabam te mooy binaal ko far la lu ko koy indil niru xarab muzakkaran mu nekk di tur boo xam ne tuddinu góor lañ koy tudd tanisam far la moo tax mu aajo alaama bu koy xamle de dégg nga aywa mu nekk munsarifan adamu sarf beet farciya la bu ko gaar yi ko koy waral nag mu su ko defee bu génnee cosaan ñaari yoon ci anam yu bokkut yu bokkut fu ñu jóge mu daal di doon maa laa yansarif kon illa yi yi tee baata soppiku mat na juróom-ñeenti illa dégg nga mawaaniu sarfi tisun kullama ijtamaat sinfaani min كلما اجتمعت صنفان صنفان صنفان مم لجوخ اجتمعت بتانيث الفعل موانع الصرف تسع هكذا ورد عند لنا كلما اجتمعت صنفان منها فما للصرف تصويب آه. عدل جمع تأنيث ومعرفة وعجمة أه؟ ثم جمع ثم تركيب ونون زائدة من بعض من قبلها ألف ووزن فعل وهذا الفعل تقريبا معنى آه علي تخلص di ca jël ñaar doon maa laa yansarif mbaa mu jël ci benn bu garaaw doon maa laa yansarif mooy benn bi mooy adlu adlu liñ ci jublu baat boo xam ne wasnu cosaanam dañu ko jàngal andi keneen masalan buñ gisee wasnu fu alu ci alami turi góor yi ci arab fu alu ñu gis muy maa laa yansarif ni ki umaru ak xusamu ak zufaru te ñu xam ne alami ya kese kese du tëyee baat mu doon maa laa yansarif te gisuñu ci leneen leneen leneen lu ñu mën ni moo tax ñu ni kon nag adlu jàngal dafa waroon nekk amirun mbaax loolu moo gën a bare ci seen wax ñu ne umaru wala mu waroon doon qaasimun ñu ne xusam wala mu waroon doon zafirun ñu ne zufar ah ñu ni kon loolu mooy adlu bi wala masna dañu waroon isnayni isnayni ñu ni masna te boobu maanaa rek la joxe par ñaar ñaar lay joxe masna du kenn ko firee ñaar par ñaar ñaar nga koy firee ñi ngay firee isnayni isnayni kooku ma adul la kon an isnayni isnayni loolu moo doon adlu benn illa la wasfiyaat illa la ndax lu doon cosaan mooy jumoot taanis uh, illa farciya la ndax tadkiir moo doon cosaan macrifa te mooy alam maanaam macrifa itam farciya la ndax cosaanu lisim an yakoona munakkaran danu ni muzakkaran munakkaran munsarifan mucraban jaamidan loolu munsarifan yooyu moo doon cosaani lisim léegi nag boo ko bëggee séddale da nga naan alam mbaa sifa ndax yooyu yaar duñu daje mukk lisim du doon alam doon sifa mukk kon bu ci ne taf ko seet lu muy àndal alam gi moo ëpp lu muy àndal mën na ànd ak juróomi yëf alam mën na ànd ak adlu ni ki Umar ñaari illa yi ko tee soppi mooy day alam di maadul du dëgg te cosaanu lisim warul woon doon maadul warul woon doon it alam ndax nakira moo doon cosaan kon dana ànd ak adlu dana ànd ak taanis du dëgg moom moom alamiya su ko defee fatimatu doon mala ansarif ndax alamiya géeg taanis xujma dana doon waxu ajam looloo tax lu mel ni ibrahima ak isaaqa ak yooyu asmaa kathira al warida fi l quran di doon ay mala ansarif ndax alamiya gi ak xujma jamu moom mën nañu koo bàyyi muy benn boo xam ni moom soxlawul lu mu àndal moog alifu taan taanisu alif tarkib murakabul masji ba tey dégg nga mën na ànd ak alamiya ba tey ni ki baala baka xadramawta ak siba wéyi dégg nga won nu ziyadata faalaana mën na ànd ak alamiya ba tey ni ki usmaanu imraanu wasnu fiili mën naa ànd ak alamiya ba tey ni ki yashkur alamu nuux alayhi salaam wala shammara alamu farasin wala wasnul fiili la su yeboo wasnu fiilu maat la ni ki shammara wala wasnu fiili mudaariu ni ki ahmadu ak yashkuru wala mu nekk ismu fiili wasmu fiili lamr wasnu fiili lamr ni ki ismit alamu baladin su ko defee kon maarifa alamiya mën na ànd ak adlu mën na ànd ak tanis mën na ànd ak tarkib mën na ànd ak ziyadatu faalaana mën na ànd ak wasmul fiil juróom yëpp ay wa sifa nag moom lu mu mën a àndal ñaar xaw ma ñett la mën a àndal sifa moom lu mu mën a àndal mu tekki dara xaal nga koy liraabe te xaal sifa la maadulun laat an isnayn isnayn mën na ànd ak ziyaadatu faalaanaat ni ki sakraanu muy mala insan wasf moo fa sifa gi moo fa daje ak ziyaada bi mën na ànd ak wasnul fiileet yett yooyu dong la sifa mën àndal ni ki akramu zaydun akramu min amrin akramu wasnu fiilu mudaari wala yor seetal ahmadu ahmadu du dëgg ahmadu mooy damay sant xamet tu sant naa ahmadu damay sant xanaa kon ahmadu fiilu mudaari wala su ahmadu dikkee di turu nit nag yorul wasnu fiil su ko defee nga nga dugg nag ci bunt bi yooyu nu waxoon du wax dara lu ko génn mu ni sarfu sarf tanwin la goo xam ne ataa dafa ñëw mu bayyinan di biral maana maanan maanaa boo xam ne bihi ca maanaa ba yakkoonu lay nekke lismu am kana min gayrihi fi baabil ismiyati maanaa gën a dëgër ci buntu lisim maanaa gën a piir ak lisim daal te ñaag piir ak lisim mooy niruwul xaraf ñu di ko binaal niruwul fiil ñu di ko def maala insar moo tax maala insar du am tanwin googu fa alifut mu dem wax nag illay fa alifut taaniif mutlaqan mbir mu muy lu ñu boyal fu mu mën a ne suya boo ci alam la ne suya boo ci nakira la ne suya boo ci sifa la ne suya boo ci muzakkar la ne suya boo ci muannas la ne alifu tanis suya boo maqsoor ba suya boo mamdud ba mooy mutlaqan alifu tanis bu mënti doon mën a tere na sarfa alladi sarfu lisim ja nga xam ne xawaahu amee na ko kayfa maa waqaa nu mën a tabee ci anam yooyu ma la wax benn ilango tanisu alif moom nag doy na moom ajuwul bu mu àndal moom waxoon nañu ko ñaareel ba wa zaida faalaana waaw yi dafa ko rot fii de zaida rek nga wax waaw yi amul fii wa zaida faalaana fi wasfin salim min an yura bi taa i taanisin xutim zaida faalaana yaarin dollanti faalaana alif ak nuun baada salaasati araf fii wasfin mu nekk ci sifa soo xam ne salima mucc na min an yura ci deesi ko gis xutima deesi ko mottalee bi taa i taaniis ci taawu taaniis ah mana sifa soo xam ne dañ caa dolli alif ak laam ni ki sakaraanu aji mandi mu doon maa laayin sari mu nekk ci sifa soo xam ne mucc na ci ñu di ko taaniisale taa ah kon bu ñu ko doon taaniisal nañu dindi nun ga def alif sakaraan góor gu mandi sakara jigéen ju mandi waaw kay waaye su fekkoon ni faalaanu ji faalaana tun nga koy jigéenale kon dootu konte dootu tax muy maalaan sarif niki rajulun xamsaanu ku sew biir wamraatun xumsaanatun xam xumsaanatun maanaam kooku kon xum bon rajulun xumsaanun ngay wax doo ko def maalaan sarif ndax sifaam muccul ci ñu di ko taanisale taa wuteeg sakaraan sifa soosu mucc na ci ñu di ko taanisale taa kenn dox sakaraana tun jigéen ju mandi sakara rek ngay wax mooy wa zaida faalaana fi wasfin salim min an yura bi taa i taanitin xutim dégg nga wa wasfu nasliyun wa wasnu afala mamnua taanisin bi taa ka ashala wa wasfu ak wasfu nag sifa asliyun bu cosaanu waxuma sifa boo xam ne dafa gaar baat bi nde du woon sifa ci ci kile du woon sifa ci cosaan sifa asliyu lan wax dégg nga wa wasnu afala teer wasnu afala tey sifa cosaan mamnu ataanisin te muy tere lu ñu jigéenale bi taa in ci taa nde sifa si moom bu fekkee ni boo koy taanisal taa u taanis nga cay def kon dootu dootu doon in la buy buy tax jël ci maanaam seen ka ashal ashal yenn wala yi di ko wax ku xolare mbaa mooy koo xam ne ndoxum bëtam dafa mel ni dafa am encre bu ca ne loolu nag sifa bu ñaawut ci bët ashal bu doon jigéen nga ni shahla ashal kenn du wax ashalatun di ko jigéenale taa ashal sifa góor la waaye bu dee jigéen shahla u nga wax waaw kay afalu faala u moom moom foo ko fekk wasnu fi'l boobu lay ma illa lay doon عارض الوصفية كأربعين وعارض الاسمية waxoon nanu ni sifa doon waslu doon sifa dégg nga benn illa la ci illa yi ñàkk a soppeeku ndax cosaanu baat mu bañ a doon mustaq cosaanu lisim mooy jaamit kon bu doonee sifa day daal di nekk illa waslu mu ni nag wa alqiyanna waccal aaridal wasfiyati aji gaari wasfiya su fekkee doon sifa gi lisim ji doon lu ko gaar la waaye moom ju moo moo ci jëkkoon kon doon sifa gi ko gaar dañ koy wacc duñ ko konte du tax loolu ñu def ko illa buy tax baat bi maa laa yansari ni ki laan ka arbain arbain wasnu afala la kon yor na wasnul feeli boole na wasnul feeli ak wasfiya waaye wasfiya gi da ko gaar rek nga naan maratu bi niswatin arbain maanaa bu di ñeent ah yaani maadudatin arbaa arbaa ah arbain kooku wasafe nga ko waaye wasaf gi da ko gaar rek arbain bi maanaam maadoodin arbaan maadodatin arbaan kooku du tax mu doon maalaayam sarif nga naan wasnu feeli ngi ci ak wasfiya te loolu lu mel ni akramu ak yooyu yëpp wasnul feeli ak wasfiya moo ko tax a doon maalaayam sarif arbain dana doon wasfiya waaye daf ko gaar rek waaye cosaan bi jaamit la woon ismu adat rek moo tax ñu wacc wasfiya gi moom lay wa ar wa aaridal ismiyati aji gaar ji ak lismiyaat wacc ko loo xam ni sifa la woon ci cosaan waaye nag léegi dañ koo def comme lisimu jaamit kon jumóot gi lismiya gu ko gaar gi wacc ko jàppal ci cosaan ga moo tax mu ne fal adhamu adham alqaydu moo di ab jéng léegi adham mooy ab jéngu weñ gu ñuul rek comme lisimu jaamit la comme lisimu la waaye nag adham aji ñuul la doon firi ci cosaan doon gi turu qayd rek moo tax mu ne al adhamu adham al qaydu mi nga xam ne mooy qayd kooku insiraafuhu insiraafuhu ak soppikoom mu ne a tere nañu ko dégg nga li kaw nihi ngir nekkam wadi añu tere loon ko fil asli ca cosaan ba wasfan mu doon sifa doxmatu mooy ñuulaay adham aji ñuul daxmaa u bu dee mu annas kon adham sifa la woon tey nag def nañu ko sax lisim waaye lisim yéegi comme da ko gaar konte wuñu ko ma ngi mel naka ba tey ma ngi nekk si fa piir rek adham nag mooy xayit ah moom la ñu nettali xisab xajaaj ak xab asara ba muy wax ak moom dani ko la ahmi la ahmilannaka alal adham danaa la yan ci adham te adham moo doon fasu mbong wu ñuul ndax aji ñuul la doon firi moom itam mu daal di ko ni mislul amiri yaxmilu alal adhami wal ashhab ah ku yem ak yow day yàgg na koo def dana maye fasu mbongu dana maye fasu xaj mu ne ko aani xadidan mu ne ko la an yakuna xadidan xayrun min an yakuna balida ah ba day di ko njuy moom it rek nanguwula nanguwula jëme wax ji ni da koy tëkku te xam nañ da koy tëkku danaa la waree ci adham mu ne ko mu ne ko ku mel ne yow danaa waree ci adham ak ashab yëpp ay kon adham alqaydu li kaw nii ngir nekkam wude a ñu def ko wasfan muy sifa fil asli cosaan tax na lismiye gi ko gaar konteetul fan siraafu kon ak insiraafam mu ne a dañ koy tere wa ajdalun wa axyalun wa afaa masrufatun wa qad yanalna al mana wa ajdal dégg nga ajdal joojule nga xam ni léegi ismun li saqr ak axyal ismun li tairin fi xiilaan la picc moo xam ne bu jaxasee dung yi muy def kulóori kulóori kulóor afaa ji firi jaani ñàngoor masrufatun yu ñu soppi la ànd ak maanaa wasfiya nekk na ca waqad yanal na danañu am léeg-léeg al man a tere soppi léeg-léeg ngir konte wasnul fiil bi ak sifa gi ndax ajal fihi maanal jadala wa hiya al quwa dégg nga يقال جدله ضربه على الجدالة وهو اسم وصف يدل على القوة أخيال تجل موخاني دفع بار كلور يو بيانغل دونغي جاخاسي كو رك مو اندي اي خيلان لاي داف لينغا كوكوت مانام صفه نيك مالام تلونا نجي افعى موي جارو ñangor من فعو السم موي ثوران السم كوكوت مانام ضرر نيك na ci bone افعى xel mën na ca fàttaliku ak lore ji ne ci bone ñàngoor tey bonoon ñàngoor rek xel day daal di dem ci ak jafeñ-jafeñ gu ne ci jaan jooju dégg nga te mooy ay wow yooyu waxat yanal nal man a léeg-léeg ñu am yan tàng ñu bañ leen soppi ngir xool maanaa was fi yàgg ca ne dégg nga su ko defee ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر ñetti baat yi masna salaasa ak uxara yooyu ñetti baat la yoo xam ni bu ci ne ñaari illa yet tax mu ñàkk a soppiku mooy adlu wal wasfiya waxoon nanu ni al wasfiya dana ànd ak adlu dana ànd ak ziyaadatu lalif wa nuun dana ànd ak wasful fiili yooyu yet maanaam wasfu dana ànd ak adlu dana ànd ak wasnul fiili dana ànd ak ziyaadatu alif wa nun yett yooyu lay àndal waaw mu ni adlu ak wasfiya nag yooyu yaari illa ñoo nekk ci baatu masna basna maadulatun an ithnayn ithnayn li takraar nga ni masna par ñaar ñaar sulaasa par ñett ñett uxaru it jam u uxra la war a doon suñu ko jam woon taksir dañu uxrayaat suñu ko defee fualu nag uxaru mu nekk maadulun anil axar maana uxar maana an uxrayatin wa uxaru jamu uxra la maadulun anil ax anil معدول عن الآخر بضم ففتح عن أخرى أخر وأخر واو معدول عن الأخر dafa waroon nga ni anil aaxari dafa waroon a am alif ak laam ñu ni uxaru saara maadolan anil aaxari moom jamu uxra la daal alayhi salaam masdaraani ah comme waxuñu uxrayaatun xanaa naan uxar kooku jamu la maanaam maadool la loolu mooy addu bi dégg nga wa wasnu masna wa sulaasa kahuma min waxidin li arbain fal taalamu wasnu masna ak sulaasa nag maadool yooyu kahuma dana mel ni ñoom min waxidin lim bu tàmbalee ci benn li arbain ba ci ñeent mafala ak fuala masna sunaa mawxada ak uxaada marbaa ak rubaa kon bon nee na li tàmbalee benn ba ci ñeent mën nañ koo jox wasnu mafal ni ki soo ne mawxad masna maslas marba mën nañu koo teg sula fuaalu nga ni uxaadu jaa an rijaalu uxaada wala sulaasa wala rubaa fal taalaman na nga xam loolu وكن لجمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلة وكن نك الكافلة دي أجي ورلو بمن لجمع بمنع تتري سوبيكو لجمع نيل جمع مشبه بنروج مفاعلة ولا مفاعيل ندول يعني كمسابيحة ولا مفاعل نك مساجد بن إلا بوبو دون موتشني موي صيغة منتهى الجموع وخونا نولي تخ ndax jamu gi rekk ci ne waaye jamu taksir da daawul tax baat ba génn awsaanul ah mafarid yi kon nag mafaila moom bu dëkkee tax lisimam daal di génn awsaanul ahaat benn mufrad bu tolloog moom dootoo ko gis looloo tax kon bon loolu day daal di wàcc wàcc waayu illa ñaareel jamu ji doon illa génnee ji mu ko génnee moroom yi doon illa ñaareel kon ci maana moo tax siqatu muntahal jumu'i moog alifu tanis tanis bil alif yooyu benn illa bu ci ne dafa doy kenn du ca seet beneen bu mu mënti àndal konte wul moom doo nga konte waza tilaalin minhu kal jawaari raf'an wa nasban ajrihi kasaari wasnu mafaila nag za tilaalin lay boroom ràggal lay mu lay la cay lu ràgg mucc minhu ci boroom wasnu boobu kal jawaari wasnu mafaila la fawail jawaari mafail la waaye dafa ràgg muy kooku ajrihi dawal ko ka saarin ni ki saarin ji firi aj rañaan raf an ci waxtu rafa wa jar ak ci waxtu jar maanaam xarafu ràgg wa da nga koy dagg tanwin la ko jëkk mu nekk tanwinu iwat anil xarf ni ngay def ci saarin ak xaasin ak raamin dégg nga sarawil a ñeel na baatu sarawil ji firi tubay ñeel na ko shabahun ak niru gumu niru bi hadal jam'i ci jam'u ji moom du jam'u mufrat la waaye niru nañ jam'u ji ci wasnu tolloo nañu wasnu tolloo boo xam ni niroo nañu niroo goo xam ni iqtada waral na lahoo ñeel ko umu umumal man'i matalek man saraf ga ci bay jam'u bi ak boobu dul jam'u bi sarawil daal bu nu nee mufrad la teewul malayen sarif la ndax gisuñu fenn arab di ko def mun sarif ngir niru gi mu niru jamu musa maanaam seexatu musa jum sarawil ah moog masaabi yi nga ni ñu tolloo sarawil masaabi dégg nga kon sarawil wute nañ ci nag xoon naa ko dem am na ñu ni jamu sirwaalin la am na ñu ni waaye nag lu ñu gën a dëgëral mooy ni mufrad la naam waaye dafa niru nag jamu ji ci wasnu ba tax ñu faf ko def maalaayam sarif comme bu doon jam dégg mooy wali sarawil a ñeel na baatu sarawil sabahun ak niru bi hadal jamu ci jamu gi niru goo xam ne iqtada waral na umumal man i matuk matale ñeel ko ni ñu koy defee ci jamu ji man manu tere soppi matalek tere soppi matalek ñàkka soppi ñàkk a soppi ku matale na ba ci boobu ngir niir googu aywa wa in bihi summi su fekkee jam u googu nag dañu koo def aw tur dégg nga aw bi ma laxiqa bihi wala loo xam ne lii dafa jokk ci moom moom maanaam mafaila ji su fekkee dañu koo def aw tur wala mulxaq bi zalika kooku falin siraafu ak soppi koom maanaam di ko tanwin ak jaare kasra man oxo ak tereem yaxe ko day war ah maanaam bi nga ko defee tur mafail ji soo ko defoon tey aw tur niki xawaariir boo ko defoon aw tur ah wa in bihi summiya ida summiya rajulan bi masaabiha tey ah boo nit bul daal di ni léegi dootu jamu mufrad la te ba muy jamu jamu siqatu muntahal jumu'i la woon tey soo ko defee tur léegi dootu jamu mufrad la dama koy soppi loolu lay bañ mu ni su fekkee dañu ko tudde aw bi ma laxiqa bihi li kawnihi ala wasnihi ni ki tey sarawi la rek soo ko defoon tur wala sharaxil kenn tur la ci tur arab ci baay bu baay bu ndaw la ci imrul xays sharaxil amuhu sharaxil ah mulxaqun la bi mafail bismillah annasun bi haa in mutlaqa ah wa chartu man il aari minhu في كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجورة أو صقر أو زيد اسم امرأة امرأة لا اسم لك نينا كذا نكنون تي علي تري صبت كجي بعد مؤنث بهاء لنيو جيجين لهاء تاني مطلقا سيتر غور سيتر جيجين سيتر لمو دون دنگ ديم هاء تاني لنيو كو جيجين فيك علم لا رك تي هاء تاني سكو جيجينال مطلقا ما لا ينصرف لي دون du dëgg du dëgg mu yeboo nag tur góor la wala tur jigéen su dee jigéen ni ki fatimatu ak ruqayatu su dee góor ni ki talhatu malayn sarif lay doon ak hanzalatu te ay turi góor lañ biha in mutlaqan maa ne wa chartu man il aari sartu tere tere soppiku lu aji raflewu ci haawu taanis dégg nga شرط منع العاري آه. آه. شرط ترى سوبيكو اجي رفله وشي تاو تاني كوكو لي شرط با بو يورول تاو تاني موم لي تخ كون ما تي تورو جيجين تخ مو تخ نيو دنگ كون كونه موي نيكم irtaqa di yéeg maanaam di ëpp fawqa salaasi passé ñetti xaraf mu annas boo xam ne jigéenale wuñu ko haa mu di alam lay tax mu mën a soppiku nag na fekk mu mu ëpp ñetti xaraf ni ki zaynabu seetal zaynabu maa laan sarif te haawutaanis nekku ci ah mu annas la rek waaye du laabil